gars yi c'est bon jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan jërëjëf mbokki àdduna jërëjëf mbokki Sénégal ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax julli ci bi di gërëm mbokki presse bi fi teew yëpp waaye di gërëm promoteur bi Jax di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax lii mu taxawal yombul diggante Ardo ak liis Ndiago waaye mbokk yi balaa ñoo def dara dañuy bàyyi liis njaago nuyu ak mbokk yi nga xam ne ñoo koy seetaan à travers partout dans le monde bu ko defee ñu ñëw ci question yi liis Ndiago àdduna ngi lay nuyu. waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak Maria am sell mi waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna bu baax di nuyu waa jàmm gan bu baax a baax di nuyu presse yëpp xam la di nuyu maanaam diaspora bi képp kuy jàppale Liss Ndiago rek ak képp kuy bëgg Liss Ndiago foo mënta nekk rek maa ngi lay nuyu baax waaw <coughs> Liss euh, état bi ñu gis si yow daan nañ ko gis si yow bi ngay soog a dugg ci làmb tey état bi nga indi tey lan la ku la digal loolu waaw du dara du dul liggéey rek man moom xale waaw te bu xoolee xam man du ma nit bu ndaw waaw maanaam man damay liggéey rek entraîné dañ may teg si yoon waaw ku si mel ni Thomas top 5 fitness ak ma waa Gambie quoi ñoom Paade ak Sall ma ne woon ñoom ñëpp waaw loolu la man damay liggéey xale laa quoi waaw. ki ngay bëreel Arzo ku ko xam xam xale boo xam si ni ni muy bëree ak xeex bi lis Ndiago est-ce que pour xeex ak Arzo samp bagaar ak moom runkum daje. Hmm. Liss Ndiago est-ce yaa ngi préparé loolu. waaw ma ne la yow lamb bu bëre dóor la ñu wax yaa ngi dégg amaan man maanaam lu mu indi benn dafay fekk tribul

doxal di ndaanaan doxal dëgg na xaw a jëm mbooloo koy indi si làmb dindi loo xamante ni bëre ba sax dafa ñor bis boo leen ne runkum daje ngeen samp jaar maanaam bëre ardo bu dee keneen ko dul ardo làmb Sénégal laa la wax bu dee bëre rek bëre bëre bëre bëre bëre mun naa boot keneen ko dul ardo di bëre dama mën la ardo maanaam abar ngeen comprendre maanaam bébé lis mi sax du moromu ardo noonu la demee koy naan lu tàng suukar saata voilà mais Liss Ndiago dañoo gis nga dugg seeg loo xam ne si mosoo ko dugg seeg si open press muy fas parce que luñ la digal la wala lan la. non digal luñ ma ko maanaam aar rek culture rek waa xam nga làmb te ñun jàmm nga lañ dëkk maanaam man bu la waxee rek sareet laa ñu dawal sama life man. moom laa ñu ko def métier barki alxuraan. billaay sama fas ba ma ba ma ko joxee yàggul. voilà pour wane la làmb ji dama siy delloo njukkal borom sareet yi ñoom laa ko tuddee. kon làmb la. waaw di preuve too tamit di sant képp kuy jàppale Liss Ndiago di sant Pape Gueye bu baax gis nañ li ñu jàppale di sant suñu waa Ikiri Cheikh maa ngi sant ñoom maa ngi ñëw balaa ngaa ñëw foofu ñëwoon nañ déglu question yi nga xam ne ñoo am waaw. mbër moo fay daan néew fa yàlla dog mu jël kii a may Liss Ndiago Liss daa dem duggam parce que am fa defet Liss is la muy sóoraale bu fa seen bëreel mais euh, indi souplesse dindi poids bi nga xamante yoroon na ko Liss mbër mi nga xamante moom mbër bu doon fàq la jar ki dogo yo bëtt bëri bëri bu rëy mais bi loolu la fa série indi gis dafa ak Ardo ci combat bi nii mu la wax Ardo maanaam moo leen waxoon ne lan la leen wax nga ne dafa teg cin waa après yéen bu combat bi jeexee guddi gi seeti leen ko ngeen dugg gàllam bu leen ko tàggu de ngeen tijji cin bi xool lu mu siy def du am dara. cin lam kon cin lam teg amul dara. dara kon moom Ardo cin ba teg amul dara. du am dara. am tuuti bu bañ ko jàppee rek cin taal. waaw ñu andi ci ngi leen sant bu laa dëgg banlieue Zar laa yaa ngi dégg banlieue laa dëgg banlieue maanaam jàmm gën laa dëgg banlieue laa déggoo ma man seul dama leen di battre ñoom ñëpp voilà yaa ngi dégg yee di nuyu waa jàmm ngoon baax di maanaam di leen woo si combat bi képp kuy bëgg Liss Ndiago foo a nekk rek di woo Diagne waaw ñu gis ko ñu ajoon la waaw maanaam lépp boor fay lañ wax waa te boor du am rak waaw kon jeex na quoi. Ah, Karbala gisoon ñu ajoon la nga nekkoon toog diir diiraan boo xamante ni la ajoon nga xawoon a raar tey lan ngay wax wa jàmm gi ak mobilisation. lu ma leen wax moo ñu ñëw. teel a dimanche nañ teel a ñëw. teel a añ ba suur a dem stade duy ko ci kaw ba suuf lépp luñ bëgg dinaa leen bëggal dinaa leen defal lépp dinaa jàpp ardo dinaa ko dugal comme ni ñu ko bëggee dinaa ko daat. di nga jàpp Ardo. dinaa ko jàpp dinaa ko duma kon ni ko supporters yi bëggee. dinaa ko daan. da ngay duma kan. Ardo dinaa ko jàpp. kon na nga ko bëgg a duma dinaa ko daan. est-ce que Ardo dinaa lool nga duma ko. waaw après ngeen ko dimanche yàggatul jour bi mooy ñaata yow. Garba laa ngay rek ci plus en tant que ambassadeur. ñu gis sa open press bu demee nii. lan ngay di di sensibiliser képp kuy topp Liss Ndiago rek képp kuy ñëw si làmb ji. di leen wax ne maanaam man maay xeex man mun naa leen xeexal ñun ñëpp. xeex bi maanaam ardo la ci géew bi waaw bu kenn xeex bu kenn toj bu kenn def dara ñëw leen sangu ba set yaa ngi dégg waaw jënd tigey seer toog seeraat ma dinaa def lépp dinaa leen ko dumal dinaa leen ko daanoo. waaw waaw tekkaaral. maanaam du wax maanaam maanaam lamb yi du lamb wax. lamb jëf la. waaw maanaam dafa jot dafa jot. waaw loolu moom la dafa jot maanaam ñu xam Liss Ndiago ban nit la doon. waaw Liss Ndiago ban champion la doon Liss Ndiago ban mbër la man mbër laa. waaw mbër kaamil laa mbër kaamil billaahi buñ ma jàppale barki alxuraanu karim ma dugal waa réserve jàmmagoon fii da ngaa jàppale da ngaa jàppale ay jàppale maanaam waa ñun amuñu jàppale mbër jàmmagoon yëpp maanaam ñun yee tey jii maanaam lu nit di wëri feneen rek am na jàmmagoon jàmmagoon ay mbër yi am talent ñoo fi nekk mais amuñu waa waaw ñun mu ñu jàppalee gëm ñu rek barki alxuraanu karim mbër gënuñu maanaam lu lépp mbër mu ngi si ñun nañu jàppale di prédo si yow laay waxal sama waaw na nga ñëbu seere yi moom laay waxal suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la Ama Anta moom suñu mag la woon démba tey doog a ñëw Ama Anta moom la gars yi di wax yalmin dëkk bi yaa ngi dégg may la ma tuuti may ñun say rakk lañ maanaam boo ñu jàppale dañoo war a jàppale boo ñu dañoo dañoo war a jàppale ñun ñoo sañ dugg sa néeg ti ci sa sol yére bu leen neex jël sa yére nangu sa birig génn ak moom du muñu fenn parce que say rakk lañ combat yi maa nga siy woo si bolog yi gi nga mbooloo bi fi nekk maanaam loolu yëpp yàlla la mhm. tolloon nga fii yaa ngi dégg maanaam dañ ma la sas bëriwul ñaari bolog laa la sas si combat bi bul dof dane ko jox gaañ nag doo xool waaw di mais sa diggante balaa nga profito da nga wax si Siteu muy yalmin borom dëkk bi muy sa di sa xarit di sa lépp ndax tamit euh, dañuy toll foo xam si ni foog ñuy wax ci lu baax ci mbër yi sa digganteeg mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk jàmm gën si kàmbaaw gis nañ ñoom ñëpp def en wuy si la dooleel la est yaa ngi sóoraale ñooñu seen ginnaaw. maanaam yow yaa ngi maanaam yéen a gisal seen bët ñun ñii suñu biir ñun mbëru jàmm gën yi ku si yëkkati lekk jox sa morom day lekk. ku si yëkkati maanaam dañu doon dem di football ay match mbër yeeg mbër ay phase fu ne dem nañ fa ñooy bokk ndékki mbër maanaam famille la quoi waaw Baye Fall yi man may. liis yaa ngi may poñe de liis poñe bi may poñe ah, lan la xanaa da nga maa jaawale ak Ardo. non poñe bi nga may poñe lan la liis. li may wax li may wax lu dul dégg. liis yaa ngi may rey de. liis yaa ngi may rey de. waaw ah, non li may wax lu dul ah, dégg waaw. waaw tamit maa ngi sant ma maa ngi woo Baye Fall yëpp. di waa di nuyu presse bi tamit ama seen fay waaw di nuyu suñu waa équipe bu baax mbëru jaam nga ni ñëpp ñu fi teew ak ñu fi teewul yaa ngi di leen sant bu baax di wax ni combat bi combat borom sareet yi la di woo maa ngi ñëw maa ngi ñëw di sant suñu waa équipe président yi Ndik Fall Ndik Fall Abdou Diouf père moom Moussa ah Gabar Jibi Ndiaye yaa ngi dégg Grand Laye tamit di sant sëfër alors Dakar di sant mafia CFA bi yëpp yaa ngi dégg waaw di sant mafia mafia tabe bu ruus bi di sant suñu Pape Pape Gueye Pape Gueye suñu papa gis nañ ni ñu taxawoo baax a baax ñu ngi xaar li lépp xam nga di sant Mame Sey Touba ak Samba Ndour di sant tamit waaw képp kuy jàppale Liss Ndiago maa ngi lay sant waaw di wax ni maanaam bébé Liss a ngi ñëw waaw dañ ko bàyyi xel wax nga loo yóbbante Ardo Ardo lay seetaan man Ardo ngi lay seetaan lan ngay yóbbante Ardo jël ma Ardo dinaa ñëw si moom mais dama bëgg ngeen wax ak bébé Liss ba pare bébé Liss ñoo ngi lay nuyu Oh, waa ñu leen di sant bu baax. waxal bu baax sa digganteeg sa digganteeg seen digganteeg yow ak Liss Ndiago lan la. waaw loolu noonu lu yàgg la. yee lu yàgg la Liss suñu mag la suñu kanam la ñun Liss la ñuy bëggee. kii sama tool la maa ngi dégg di sant Aliou bu baax baax ñoo na góor a fu ñu Liss ñu dem ngóor bilaahi waaw di sant Thier borom di foncé di sant sama staff yëpp di sant Assane Seye bu baax di sant Mor. di sant Ardo waxal ak Ardo Ardo lu mu lay yóbbanteel mooy nga toxoñ say bët nga xool nga xool maanaam liis ñëw na doo dee gore naa la changé sa profil def si liis ñaawa eh, borom tool tous